yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñuy ñaani waajur di sant waa dëkk bi bu baax a baax waaye di sant Cheikh Tambédou borom tele bi bi nga xamante ni su ko neexoon mu jël ay journal wala ay publicité waaye moom culture Ziguinchor moo ko tax a jóg Cheikh Tambédou yàlla yàlla defal jàmm ñun nag ay artistes lañ dañoo bàyyi yaay bàyyi bàyyi bàyyi ay rakk bàyyi ay mag yor njaboot yor sunuy jabar te sabar rek mooy suñu métier amuñ beneen métier bu dul sabar nag gannaaw yàlla ak yonent bi ñun teg nañ la suñuy loxo. te xam na ñun xamuñ lu dul aar aar lañ xam guddi moom lañ xam bëccëg moom lañ xam suba moom lañ xam ngoon lépp luñ am suba ma ngoon jot ci aar lañ ko amee kon seex rajo bi ak télé bi yàlla na ko yàlla def ay télé tele ci darajee Seydina Mohamed Cheikh Tambédou fi nga bëgg a yóbbu Ziguinchor yàlla na la ci yàlla defal jàmm ak tawféex ñun nag ay jeunes lañ nekk ci dëkk bi te yi nag bëri nañ fi torop waaye nit bala ngaa laax jaay laax lekk ba pare te nit boo xamee li ngay jar da xam fañ lay jëndee nga taxaw fa ñun nag yàquñ suñu aar ndax ñi ngi sant yalla bu baax donte liñ man wul waye dañ ko ñàkk afa biñ koy man dañ cey daj lu ne cheikh yalla sa jamm yag yalla la defal jamm groupe bi mi ngi groupe Fallou man may chef groupe bi ma ci gëna touti waye nak nag njiit du tuuti njiit yàlla moo koy def groupe bi mi ngi tuddu groupe sop Serigne Fallou Mbacké nek fi ci sor ma ngi dekk kolaban ndaysan yaaka naa yow fi nga dekk ak man fi ma dekk soreewul ndax ma yow ñoo bokk koñ waaw am loo min nañ ko bu baax wax fi yàlla min nañ ko parce que tëggkat yi bëri nañ fi waaye terewul ku ci nekk sa wërsëg da nga koy lekk ndax tey jii ñii ngi tëgg fii ñii ngi tëgg fii ñii ngi tëgg fële dëkk bi bëgg nañ tëgg bu baax a baax waaye nag di waxtaan ñun entre nous ñun suñ famille ñun géwél yëpp ñu bëggante suñ biir ndax àdduna yàggul dara yàggu fi te wërsëg ku ci nekk sa wërsëg kenn mënut a lekk wërsëg kenn ñun ñu neen ñu fi dëkk nga xam ne dëkkuñ ci dëkk bi dañoo bàyyi ay oto jugee dëkk yu sori ñëw fii dañoo war a toog bëggante suñ biir di xàccandoo di dóorandoo suñ ko defee dëkk bi jëm kanam mais dëkk bi moom bëgg nañ sabar olof bu baax a baax Thank you. you. Thank you. tudd Augusta Gomis ma judoo Guinée Bissau yaroo fa def fa yëpp def sama cosaan yëpp gine li ñuy def nii suñu cosaan bu ñuy def nii cosaan suñu lël ak suñu cosaan bu ñu jógee comme sa boo leen jógee nii kam kamaada daal bu ngeen ñi nga xam ne da ngeen judoo année bii nii da ngeen def affaire cosaan yooyu di tëgg affaire ñu defoon noonu comme laal bu ñu solloon yore cosaan yi moom bu ñu sàkk ñu ñu xam ne dañoo judoo deux mille deux mille vingt bi dañuy defar seen bos ku nekk defar seen bos après boo leen demee comme ça co yi bu amee nii boo leen jëlee pour dem fecc mun ngeen ko yóbbaale di ko feccee mais première woy bu ñu woyoon suñu woy lël cosaan la deuxième bi moom la troisième bi suñu lël ay morom la ñu fu ñu nekkee noonu di bëri ay fecc di tourner noonu daal xam nga noonu la ñuy defee Thank you. njaagu lañu awaa Guinée Bissau kayo njaagu kayo cosaan njaagu kayo suñu lal bi dafa tudd Malima waaw boo bëggee tam nga ne ko office office mato sama mbokk njaagu ñu may gis ci télé dama leen di nuyu ñoom tamit bu ñu nekkee même bu dee Dakar Gambie fu ñu nekkee France wala almaañ fu ñu nekk mun nañu def comme ni ñu defee nii daal pour ñëpp gis leen ñu xam ne njaagu yi tooguñu daal dañoo bëgg seen cosaan Thank you.